mbokk yi maa ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm di leen masaw ci déplacement bi nga xam ne def nañ ko ci gox di gërëm le sous-préfet arrondissement des Agnam di gërëm le président du conseil départemental di gërëm l'ensemble des zones ci ñi bokk ci biir arrondissement des Agnam composé de six zones mooy fan zone bu Dabieu dans la commune de Dabieu zone de Danamayo, qui compose la commune de Dabier, certains villages, et certains villages de la commune des Agnam. La commune des Agnam, c'est zone 2, la zone Djerewalo, la zone Orefondé. Nous une zone de la commune de Chilon. Nous sommes di qui masawu coono ci de déplacement di gërëm encore président ODCAV de Samba ak notre jeune frère Arouna Ndaw ak l'inspecteur bi nga xam ne ne moom la état bi dénk fii ci wàllu sport jóge ba Matam ñëw di ñu wuy si ci bis ci mel nii yëpp musuñoo teyal ñëw di gunge si xale yi nga xam ne ne communication bi da jàll na mooy nañu xam ne fair play la ñu waxtaan seen bopp kafre bu jàllee seen ñu continuer loolu lépp nag li ko waral mooy dañoo gis président de la république makisal Sall lim ñu instruire ay lo xam ni jël nañ ko ci mom moy dafa bëgg xalé ñu jappalé leen ñu nekk ci seen initiative nekk fi waxtaan ak association yi nous ASC 48 ASC benn bu ci nekk ñu la jeu de maillot ballon ak enveloppe financière dina permettre do do du dem ci kenn di ut ay ndimbal waral zone bu am so solo la zone bu noble zone arrondissement des Agnam ñun ñi déggoo lañu ñun ñi jàppalante ñu ñu bëgg seen bopp lañ te ñu bëgg président Macky Sall lañu moo waral nag lépp lu ñu jàppoon ak bu nekk ñu ñëw fii waxtaan si ak ñoom jàppale leen dimbali leen loolu mënuma ko bañ a wax maa ngi leen di gërëm di gërëm ñëpp di sant ñëpp ñun daal ginnaaw yàlla ak yonent bi ku Macky Sall àndal nga nekk ci wetam nek ko xam mo la formé bo nekul ci sa wetu gox jappalé wo ci say ndaw joxé wo cours yu yu yi nga xam ne la jangalé Macky Sall dafa jangalé ñu nek ci population yi dem ci nit ñi toog ci gox yi waxtaan ak seen population ndax loolu ndigal yoy la la la kon nak ñun nak té Macky Sall mom lañ def kilifa ci walu politique lim ñu jox comme ndigal inshallah dinañ ko appliquer mais du téré xam nañ ni président makisal ku bëgg Sénégal la ku bëgg askanam la ku ñu jàppale la bis bu nee nag conseil des ministres bu nekk bu ñu sañoon ñu am benn affaire ñu naan fii lañ ko yóbbu. ñoo yey ndax nguur la xam nañ àdduna nu muy demee lu tax ñu bëgg ko nag dañoo wax dëgg yàlla ñu ngi tiitaru ci li ñu nekk doomu gox bi ak li nga xam ne ne fii la ñu bokk fierte la si ñun loo xam ne ne fi ñu taxaw dañ koy wane.